Papis? Ouais. Ibu. Ibu. Ban ibu. Ibu mel ibu? Ibu jël ci kelas ba rek mais élève bobu rek nga du ko Ah oke, wax nga ibu mi bokalon classe. Ça ibu? Ça Eva. nek? Ma Ya am jamm bu baax. Sante rek. Mais yow bi ni ci jang bari wul lu Ah yoon la kay ren mom moy lool la. Dama mujjé pour jege maire bi daal mais du dara quitté école yow war ngaa xalaat quitté école bi te yow nga bok ci élève meilleur élève bi gis nga ka bi mo gëna critiquer critiqué moo il faut mo obligé def loolu jege maire bi dal ka bu gëna critiquer critiqué mais nga wax mako ko ma wax ko sama tonto au moins mu jappalé sax ci benn côté mo gën nga nan da ngay quitter école bi waaw yoon la mais Eva bëd bu résultat mais à chaque fois yow élève nga da ngay jang comme man no jangé à chaque fois saa yu ma waxee sama problème rek bu kaa kii daal mais bii moom dama la kaa ñaan bàyyi ma dam rek bàyyi ma jéem a kitee ko jege meer bi. daan na dund situation xam ne Ibou bu ñu daan wàcc école sax pour mu am lu mu ndekkee problème la daan doon. bu ñu wàccee 14h moom wala 17h Ibou bu ñu daan dem ba ci mbedd bi ci ngénte yeeg yooyu Ibou da daan jékki-jékki yoo lekk pour mën a am fu mu añee. Ibou daan dund problème yoo xam ne Eva métti woon na trop trop trop sax. Junior Junior mon fils lan la hmm? yow nga xam bo doon yeew da ngay ñew ba sama chambre nga fekk ma fofu nuyu ma mais tay defoko nga yew rek ñew tok ci salon bi dégg na ndekki biñ la won sax lekkoo koko lan mo xew lu tax nga triste man benn problème la am muy sama digënté ak sama papa man ma comprendre sama papa légui sax sama leçon mënatuma ka réviser bu baax bu né cëpp ci biir kër bi bu ma gisé lima jangone jàngoon lay faté même sax bu ma defee benn problème bu ndaw bu ma diggee mu jéem a créer ay problème ba dóor ma bu dee kooku nekkul sama papa nga wax ma. eh arrête que ça soit la première et la dernière fois ma lay dégg ngay wax loolu. Ça ne se négocie pas, ça ne s'achète pas, pas, pas. mais waxuma loolu sax attends yi da ngeen a am vacances bu bees. kee monte ah, de suñu vacances tardé. waaw nu mu demee ci mbedd bi mën a inaale waxtaan. gis ma di nga foog ni man xamma nekk ci sama suuf lu ma seen ma gis ma di nga foog ni man xamma nekk ci sama fii nii ñuy foo moo gën nga dem ay plage man es bi moom ñëw toog fii du sama problème sama problème kay mooy sama papa instant bi moom si sama papa rek ay sama problème bref man waxuma yooyu sax Eva mais temps yi yow nu mu demee nii. waaw temps yi su ma la invité ay piscine party soirée genre yooyu du ma la gis quoi. yow bu ma waxatee affaire piscine party. Ah, waaw lu tax du ma la ko doon wax. dematuma soirée dematuma party dematuma fenn suñu tonton dafa sadik. ay ban tonton ah, ay ma tonton ah gisoo rek. jouet yëpp la ko jëndal indi ko ko ci kër gi rien que pour bañ ñu génn rek. lay mais tamit bul fàtte ni il faut que jeunesse sa phase quoi mm. yow daaw ñoo ko daan ànd danga tentoon def lépp mais tey xool ni nga mel. xam nga. ñëwal ñu dund boog xam nga dund suñu óola laa quoi yaa am gën a néew. nga foog ni man xam ma nekk ci sama suuf ni bul ma seet bul ma gis ma dire nga foog ni man xam ma nekk ci sama suuf ak ci gannaaw